tout cas ñu ngi nuy ñëpp ak fépp foo leen mënti nekk di leen ziar leen jox seen wàccuwaay ah di leen gërëm ci taamu bi ak. sax xool bi bàyyi xel sa temps. nee na ah ma soroo ko sax ba tey am nañu. tey jël sa temps ok <laughs> ok. ok hmm. alors démb ñu ngi woon fi nga xamante ne nii kat moom moo doon pôle urbain bu jam ñaajo ndaxte démb fàttali naa leen ne leen mais am na ñetti milliards yoo xam ne ne gaa ñi recouvrer wuñ ko mooy gaañu ñi demuñu jëli xaalis ba beneen bi moom mooy am na juróom-ñaari milliards ak lu teg aslëf tamit gaa ñi waroon nañ ko jëli ni seen koppar la ñoom waa délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose juróom-ñaari milliards ya ak lu teg as lëf gaañu jëluñu ko pour nee na boo ko dajalee daanaka fukki milliards ak lu teg ak ñaar as ak lu teg <laughs> gaaña daal recouvrer wuñ ko te ñépp xam nañ ne démb waxaat naa ko DGPU ci boppam mais la muy dundee bokk na ci xaalis yooyu nga xam ne war na ko jëli ci ay boo wala bàyyi location yi nga xam ne ne jox na ko ay promoteur DGPU moom mooy déléga délégation générale à la promotion de pole urbain de Diamniadio beneen bi moo di ne mais ci cotisation yi nga xam ne wala ñu tuddee ko participation ci VRD mu di voirie réseau et divers mais ci loolu la dgp DGPU di war a mën a doxee mais loolu yëpp gaaña lañ ca am demuñu ko jëli ji dañ ko jëli jiwul yëgal ko état wala dañ ko jëli jiwul mu am traçabilité wala dañ ko jël ci suuf problème am na. cour nee waaye gaañu. yemuñu ci lool newuñu ci yàcc na sar nag ci atum deux mille vingt jàpp deux mille vingt et am na ñaar fukki ak ñaari commandement yoo xam ne yónnee nañ ko gaañ na leen lu xew pourquoi yéen ngeen war di mën a fay li nga xam ne ne tey état du Sénégal moo ko moom à travers bànqaasam bi yéen doo leen ko fay ci noonu signé nañ ñeenti protocole d'accord ak benn saisie boo xam ne am na koo xam ne joxoon nañ ko ay mètres carrés si vous ay hectares gaañu nangu nañ ko waaye lépp lépp lépp boo ko dajalee la ñu njëkk a jëlaat moom mooy benn milliard ak lu teg aslëf ñu tegaat ci beneen milliard ak lu teg tamit wala boo bëggee beneen milliard ak genn wàll loolu noonu nañu jot jëlaat ci ñi nga xamante ne ni kat war warloo nañu ak ñoom ci yenn yi nga xam ne lim naa ko sànq mais Cour nee na boo ko boolee lépp ñaari milliards la ak lu teg as lëf mais ndekete Cour nee na loolu du tax ngeen ne ay jàmbaar ngeen de mm. déedéet ndaxte loolu yëpp boo ko dajalee day mel ni ne téeméer ba ñu waroon a jëli saa waay laaj ma ñaata dañ ci jël. ñaar fukk ak juróom. kon mbir ma des na ba léegi. nañ ci jël. kon liggéey ba des na lañu waroon a recouvrer des na ba léegi. beneen bi cour nee na mais am na ñetti milliards ak lu teg as lëf loo xamante ne ni kat gaa ñi recouvrer wuñ ko. mais parce que ndekete délégué général ba mais ak agent comptable ba ci boppam amuñu ay pièces justificatives en fait pour mën a recouvrer loolu ah mais problème la parce que ñoom it bu ñu waree recouvrer mbir mais war nañ mën a ñëw ne la waay sa waay kat lii de moom nga fi amee lii nañ la war a recouvrer mais loolu ñu la war a tegal nag nga teg ko ak sa bët loolu moom mooy problème la pièce justificative amu fa loolu xaw ma faute de gestion la xaw ma faute de su man xawma ma lan waaye loolu moom mun a su koo nangu wala wanaasu ci ñoo xam ne dañuy jiite ñu jógee ci loolu am na juróom benn fukk ak ñaar yoo xam ne ay attribution la ay nit ñoo xamante ne nii jox nañ leen ay suuf juróom benn fukk ak ñaar boo ko xaymaa lañ leen jox ci suuf lépp mi ngi toll ci ñeenti million mètre carré ak lu teg mais xam nga luy wax ñooñu ñëpp kenn participé wul ci lu ñuy tuddee voirie réseau et divers mooy assainissement ba fa war a am électricité ba ndox baag ñoom ñëpp juróom benn fukki ak ñaar yi kenn cotisé wul <laughs> des na sax léegi fa may jeexale moom mooy ndekete ñoonu cotisé wul mais ci gafaga état manque à gagner la goo xam ne toll na ci fukki milliards ak juróom gaañu nag foog nañ ne ñoom ñoo rey gaynde gi ci jamono ji nga xam te ne nii gafaga état ma ngay déy ndax ay fukki milliards ak juróom yoo xam ne jotuñu ko ay ñetti milliards ak lu teg yoo xam ne recouvrer wuñ ko ndekete dépense de fonctionnement yi moom ma ngay yéeg moom gaañaa ngay gundaandaat dund gu dund gu neex taal clim laal machine à café laal ñoom frigo dégg nga koor na dépense de fonctionnement yi jóge na ci un milliard ak lu teg dem presque ba ci daanaka ñetti milliards ñetti milliards bi yéen liggéeyoo leen ba pare euh. di dundee loo xamante nii daanaka moom day gën di yokk bés bu ne. waaye coowal azar bi tamit. daa ci ñëw de. lu mat a wax la. kaña. ba suba ak jàmm incha allah incha allah.